très rapidement ñu leen di remercier euh, si ni ngeen ñëw parce que ñun mënuñu def dara yéenay taskati xibaar yi comme le doyen feu doyen Mame Less Camara nu mu ko doon waxee rek ñun bu ñu demee bay def suñu rôle de veille et d'alerte yéen a ko mun a tasaare moo tax boo leen fi ñëwee rek dañ siy rafetlu di commencé woon nañ sànq par une de silence par rapport ak Anna jeeju bu nga xamante ni moom moo nekkoon jugee woon usuy bu nekkee jumuma nga xamante ni fu mu nekkoon bombardement moo ko fekk foofu noonu rey ko muy benn sénégalaise. te nag lu ñu tax a jóg moom mooy lenn dafa am benn situation boo xamante ni moo am lu tolloog euh, ay ndawu sénégalais wala ay sénégalais yoo xamante ni dañoo demoon daan seen doole feneen di Liban ñeneen ñi dañoo dem dëkki foofu noonu ñoom nag dañoo nekk ci benn situation boo xamante ni provoqué wuñu ko dañoo ñëw fekk mu am ay bombardement yu fa am parti sud ñoom lu ñu wax mooy parti bu nga xamante ne moo gën a jege Israël parti boobu noonu la ñu gën a bombardé maintenant boobu leen fa fekkee nag amoon na ay sénégalais yoo xamante ne très tôt teeloon nañ ñëw wax je pense que RFM wala TFM wane woon nañ sax sénégalais boobu noonu nga xam moo ñu doon lancé alerte waxoon nag ni gouvernement bi jël leen seen responsabilité ngeen jéem a rapatrier ñu nga xamante ñoo nekk foofu noonu kon nu ma ko waxee rek sànq c'est pas politique Diagne solution bi nii ñëpp xam nañ ko c'est un mais am na fu mu féete ci nguur bi mais c'est juste pour wax ni que lu ñuy woote c'est par rapport ak ñu nga xamante ni situation de détresse la ñu nekk ñoom nag boo ñu leen woowee ah malheureusement lu xew xew moom mooy Anna Diédhiou boobu noonu décédé si si loolu nag ñu gis ni que ah kenn si gouvernement bi génn na wax ni que dinañ jéem a def tout ba rapatrier ces 700 voire cent compatriotes yu bloqué foofu noonu ñu joxoon leen ay date date yooyu noonu nag ba léegi fu ñuy waxee jotu ñu leen gis te date yooyu passé nañ ko ñu ñaan lenn mooy solution yi mooy lan mooy que suba tey jii nii message bi ñu jot ko bu ñu ko jotee dès suba ñu commencé ñëw indi leen bu ñu leen andee ba pare nag lu ñu soxla moom mooy si sutien psychologique parce que boo jaaree si guerre nga gis ñuy bombardé sa kër ak yooyu noonu nga gis ay ndaw yoo xamante ne yéen a euh, màggandoo wala yéen a liggéeyandoo et cetera ñooñu ñëw faatu mais loolu psychologiquement daf lay affecté loolu moo waral moom boo mu toogoon fii nii demoon na bay waaja sax di jooy heureusement que tantam moo ñu fi pour defal ko ba buy léegi nii bu sëkkatee di nga gis ni que dret daf koy sëkkat donc muy soutien boo xamante soxla nañ ko peut-être que moom ay mbokkam wala ñu nga xamante ne tasante na ak ñoom ba ñu aidé ko mu nekkoon si Beyrouth si corniche bi di fa fanaan si mbedd bi ñoo ñu ñëw jàppale nañ ko ba moom mu jël vol commercial je pense que Turquie la jaare ba mu jugee turki ñëw fii nii Sénégal mais am na ay ndaw yu bëri yoo ay sénégalais yoo xamante ñu sant Ndiaye sant Diop sant yeneen sant yu fa des amuñu koo xamante ne dinañ leen yónnee xaalis taluñu sax bay jël seen xaalis bay ñëw dem Beyrouth di fa toog bay ñibbisi loolu moo tax ñoom soxla nañ soutien psychologique boobu noonu mu am solo beneen soutien bi moom mooy sanitaire kuy dem bay sëkkat deret war nañ xool gëstu sa yaram xool sa wér-gu-yaram loolu bu ñu ko weesoo nag ñu seet seen réinsertion sociale xool nan lañu leen jàppalee ba nga xamante ne fii bu ñu fi nekkee dinañ dem sax ba amaat benn activité boo xamante ne dinañ fàttale donc loolu daal moo tax ñu woote réunion bii nii woote conférence de presse autant pour moi pour ñëw wax ko Sénégal nag dañoo baaxoo lenn mooy boo leen gisee ñu bloqué woon Libye ak yeneen dëkk yu ñuy rapatrier on a applaudi mais nan lañ leen accompagner ba ñu réinsérer moom mooy des les deux cent soixante treize migrants yu nga xam ñooñu bloqué woon Niger en deux mille vingt deux ba ñu jàppale leen ba ñu ñibbisi je pense que loolu doxoon nañ si ñun suñu organisation action pour les droits humains l'amitié Diagne bii rek moom mooy seul activiste boo xamante ni dañ ko woo mu nekkoon si combat boobu keneen képp ku ñu woo danga ñu doon beddi euh, woon ñu ginnaaw. ba si ay député diaspora yoo xamante ne dem nañ dox moom duma bàyyi ma fen ñu dem gis leen jéem a wax ak ñoom mais rendez-vous sax duñ ñu sax accordé mettre leen en relation te dañoo ne on veut pas être des intermédiaires pour joxleen ay contact ak yooyu mais faalewuñu leen donc il faut que les politiciens de manière général waxuñu camp bi waxuñu camp be mais ñoom ñu xam ni que c'est des sénégalais am na loo xamante ne bu koy wax devant seen micro nañ ko jëfee tamit si dans la vie active donc ay sénégalais lañ fi nekkal dañoo war a mel entre guillemets ngeen baal ma si wax mindaanu sénégalais yi ñëw xeexal sénégalais ñooñu boo ñu ñibbisee 2022 ak léegi ñaataat la deux ans la. mais ñoom ñëpp jëlaat nañu yoon bi xëy na loolu nekkul biiru réunion bi euh, conférence de presse bi mais mun nañ si ñëwaat plus tard pour wax ni que am na benn accompagnement boo xamante boo ko defee mbuxum boo xam boo ko defee les personnes dañuy jëlaat yoon yi dem seen yoon ñii nag mënuñu dem parce que Libye ay bombardement moo fa am jërëjëf. Bonjour monsieur et euh, Amine El Ali. Je vivais au Bon, j'étais trop eu des problèmes parce que le bombardement était à côté de moi. Il y a le mari de ma copine, il s'est décédé devant moi. Alors, tout ce que je vois, je le vois tout le temps. J'aime bien oublier tout ce qui s'est passé, mais je ne peux pas. Et il y avait des gens qui m'ont aidé. Je suis restée de 3 heures l'après-midi jusqu'à le lendemain dans la rue. Il y avait des gens qui m'ont donné un coup de main pour rentrer à Beyrouth, pour partir à Beyrouth. Bon, je suis arrivée à Beyrouth. Il n'y avait pas d'appartement, ni quelqu'un, euh, ni partir. J'avais personne qui était à côté de moi. Je suis restée dans la corniche. Je suis restée trois jours. Je n'avais ni à manger, ni rien du tout à la main. J'avais que mes papiers. Je rappelle qu'elle avec les commencé à vomir du souffrais bien. Mais Alhamdulillah, Dieu m'a envoyé quelqu'un qui m'a donné un coup de main pour venir au Sénégal. Il s'appelle Ibrahim Alouche. Quand il m'a vu dans la rue en train de pleurer, en train de vomir, il m'a dit qu'est-ce que tu as Je lui ai dit j'ai des problèmes. Il m'a dit quel genre de problème Je lui ai dit je veux rentrer en Afrique chez ma famille. Il m'a dit si tu veux, je peux te couper un billet d'avion, tu pars. Je lui ai dit il n'y a pas de problème. Moi, j'ai cru qu'il était en train de se blaguer avec moi. Mais en vérité, que Dieu l'a envoyé chez moi, il est parti à Turquie et moi, je suis rentrée au Sénégal. Mais la souffrance me touche tout le temps. Et j'aime bien que vous donnez un coup de main à mes sœurs et à mes frères qui sont au Liban pour venir. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance en ce moment là-bas. Beaucoup. que Parce que le problème n'est pas encore fini et ça augmente plus en plus. si on peut faire quelque chose maintenant, c'est mieux qu'on arrête On n'a qu'à faire tout ça maintenant, parce qu'après, on va regretter qu'on n'a rien fait. Où tu étais Dans quel village tu étais j'étais à Nabatillé. Et il y avait beaucoup de Sénégalais. Mais il y a mes frères qui sont en train d'étudier là à, euh, à Beyrouth, à Nabatieh, mais euh, il euh, y avait une vol qui est venue les prendre. Ce sont des Iraniens. Ils, ils sont en train d'apprendre l'arabe là-bas. Mais moi, quand j'ai sorti de Nabatieh, je suis rentrée à Beyrouth. Euh, oui, ils attaquent. Parce qu'ils sont en train de jeter des bombardements qui brûlent les gens. et des bombardements qui laissent souffrir les gens aussi. Tu peux même pas respirer, tu peux pas voir, tu peux rien faire. c'est ça qui m'a pris. Moi, ça fait longtemps que je suis au Liban. 27 ans. ans. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk seen tur ak seen sant suñ dalal dalal mu ngi leen di dalal jàmm. tey jii sunu teewaay euh, ñu ngi ko taxaw ngir sunu sunu mbokk Sénégal yu nekk Beyrouth Liban ndax euh, tey jii lu xew Liban euh, doy na waar torop xeex bi metti na torop te suñu àndandoo jaam suñu mag yi suñu rakk yi suñu ndey yi ñu ngi ci ay coono ndax euh, bomb yi bari na xamuñu est-ce que ñu ngi am lu ñuy añ ñu ñuy reer ñu ngi lekk ñu ngi fanaan ñu ngi ci àll bi fan lañu nekk xamuñu tey jii ñu ngi laaj suñu gouvernement bi mu taxaw ci lu mu gën a gaaw ndax sunu sunu mbokk sénégalais yi ñu ngi ci ànd ak tiit ñu ngi ñu ngi réer ndax man sama sama jarbaat foofu la jóge waaye ba léegi buy nelaw dafay nelaw ak tiit wàccu na deret kan la fi egg ndax lu mu nokki foofu kon loolu mu ngi firndee ne dañ ko war a taxaw taxaw bu gaaw ndax euh, mbir bi metti na torop torop torop muy Éthiopie jëli na fa mbokkam yi muy euh, Turquie jëli na fa mbokkam yi ku nekk jëli na fa mbokkam yi kon nag nun lépp loo xam ne yéex nañ ci rekk bari na mbir bi dafa war a gaaw

Mais qui sont en train de subir ce terrorisme C'est les Palestiniens. Où ils sont ils sont, ils sont emprisonnés dans leur propre pays. On leur vole à chaque fois. On leur vole tout leur, tout leur terrain. Et puis c'est eux les terroristes. C'est des résistants. Les terroristes, c'est les Israéliens. Ils sont soutenus par l'Europe, ils sont soutenus par les Nations Unies, par les États-Unis. Et cela, bien, il faut le dire très haut, avoir le courage de le dire très haut, très fort. Et si on ne fait pas attention, ils vont nous mener, ils vont nous mener à une troisième guerre mondiale. Parce que la réalité égypte et africaine, ils sont en train de toucher le Liban. Mais ils n'arrêtent pas, ils, ils, sont en train de faire ce qu'ils ont fait à Gaza. Ils tuent les enfants, ils tuent les femmes. Et pourquoi ils font cela C'est parce qu'ils ont besoin de faire le grand Israël. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. La défense de toute l'humanité se doit Nous devons le respecter. Le droit, le droit, il vaut à tout un chacun. Ce n'est pas moi j'ai le droit et toi tu n'as pas le droit. Ou bien l'ONU, elle ne sert plus à rien. De toute façon, elle ne sert plus à rien. Elle ne défend que les causes des États-Unis. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Merci. C'est que, en fait... Ce que j'ai à dire en premier, c'est en fait pourquoi le Liban aujourd'hui Pourquoi le Sud-Liban aujourd'hui Pourquoi Beyrouth aujourd'hui il y, a, eu ces attaques sur Beyrouth et, sur le Liban parce que uniquement le 7 octobre, Israël, l'État terroriste d'Israël a été attaqué. N'est-ce pas Par la suite, nous avons connu ce que l'État terroriste d'Israël a fait à Gaza, en Palestine. Et maintenant, pour asseoir son hégémonie, l'État d'Israël, l'État terroriste d'Israël est en train d'attaquer tout le Moyen-Orient, est en train d'embraser tout le Moyen-Orient. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, Beyrouth est attaquée. Et si Beyrouth est attaquée, le Sénégal a des compatriotes au Liban. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour demander au gouvernement sénégalais de faire un rapatriement massif de tous les Sénégalais qui sont au Liban. sont en train de souffrir, ils ont été recensés, Peut-être, peut-être dans les jours à venir, l'État va réagir, mais je, je, pense que le plus vite serait le mieux. Le plus vite le mieux. Les Sénégalais sont en train de souffrir au Liban. Donc il urge aujourd'hui que le gouvernement sénégalais, dans les plus brefs délais, puisse prendre ses responsabilités pour rapatrier les Sénégalais installés au Liban. Je vous remercie. Amidou Sidibé. Pardon euh, Membre de la Ligue au Sénégal.